أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ci suratul baqara di jël tey ñeenti aaya muy aaya ñaar téeméer ba aaya ñaar téeméer ak ñett deux cent ba deux cent trois ñeenti aaya yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróom-ñaari mbir bu ci njëkk mooy wujubu zikri bi minan inda ramyil jamrat is yukabbiru maa kulli xasaatin qailan allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ci ñeenti aaya yi waral gi mu waral tudd yàlla ci barab buñ naan minan képp ko aji fan ya ngay def ca minan na nga yëg ne ay fan la yoo xam ne fanu tudd yàlla la ginnaaw ba nga sànnijee say jamra li la war booy sànni jamra ya jamra boo jël di sànni nga ni allahu akbar loolu dinañ ko jàng ci benn aaya ci ñeenti aaya yi nekk sunu kanam ñaareel bi mooy fadilatu zikri war ragbatu fihi li annahu min mahabillahi taala borom bi subhanahu wa taala mu ngi jàngal ci aaya yi nekk sunu kanam ba tey ngëneel ngëneelu tudd yàlla mooy az zikr tudd yàlla jële nañ ci imaamu ahmad mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayaamu tashriq ayaamu aklin wa shurbin wa zikrillahi rawahu muslim yonent yàlla muhammad nee na ayaamu tashriq mooy fan yooyu nga xam ne mooy fan yi ngeen di nekk munan na ngeen yëg ne ay fan yu la yoo xam ne dañuy war a lekk ay fan la yoo xam ne dañ cee war a naan ay fan la yoo xam ne dañ cee war a bëril tudd yàlla subhanahu wa taala moo tax ci beneen hadis mu ne laa tasuumu haadihi l ayaam bu leen woor fan yooyu fa innaha ayaamu aklin wa shurbin wa zikrillah yonent yàlla muhammad nee na fan yi ngeen di def minan bu leen ko woor na ngeen lekk na ngeen naan waaye bu leen fàtte na ngeen tudd yàlla subhanahu wa taala kon loolu dinañ ko jàng ci aaya yi ba tey ñetteel mooy fadilatu sualillahi taala alxayrayni wa adam wa adami al iqtisaari ala ahdihima yoonal nañ ba tey ngëneelu ñaan yàlla ñaari mbir ñaan yàlla àddina waaye ñaan yàlla àllaaxira li gën a yées ki gën a yées ci doomu aadama yi mooy ki jàkkaarloog boroomam amoo loo koy ñaan lu dul sa àdduna rek kër laa bëgg xaalis laa bëgg oto laa bëgg jabar laa bëgg gudd fan laa bëgg nga fàtte sa àllaaxira ki gën a yées ci doomu aadama yi mooy ki jàkkaarloog boroomam wala ay waxtu yoo xam ne dañu ne waxtu yi dañuy nangu ñaan wala barab bi dañ fiy nangu ñaan wala lii su ko nit defee yàlla nangu ñaanam amoo loo fay def lu dul di wax waxu àdduna fàttey àllaaxira loolu dañ koy jàng ci ay yi nekk sunu kanam ñeenteel mooy ngëneel ñaan ñaan bi ëpp doole ci ñaan bi dañ koy jàng tey ci ay te mooy duwaau rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar fa hiya jamiatun li xay lil xayrayni maan ñaan bi dafa boole li ñu doon wax léegi-léegi dafa boole àdduna boole al'axira dafa ëmb lépp fa kaana annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida taafa bil bayti yaxtimu biha kullu sawtin yonent bi saa sallam bu daan wër kaaba gi bu déparé ba ñëwaat fi mu déparé woon ñaan bi lay tëje wër boobu su wëree ba ñëwaat fi mu déparé woon ñaan bi lay tëje ba juróom-ñaari jéego yi daal di mat juróom-ñaari wër yi daal di mat ndax wan leen ne ñaan bi am solo bu mu am solo juróomeel mbokk yi ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy wujubu war na almabitu bi salaasa layaalin bi minan minan foofu ñu naan muna dañ faa war a fanaan ñetti fan fanaan googu nag wujub saa yoo jàngee ci sharia ñu ne wujub mooy lan mooy dafa war war na ci yow war na ci ñun képp ku yàlla wërsëgal nga dem aji nga xam ne place boobu barab boobu dañ fay fanaan ñetti fan wujub la wax almabit salaasa layaalin bi minan wa wujubu ramyil jamraat encore dem sànni yi jamra yi dafa war is biha yaati zikrullahi fi l ayaami lmaadudat wa hiya ayaamu tashriq boo sànni jee jamra yi ba ñëwaat nag foofu la takbiir yi di commencé foofu lañ naan ayaamu maadudat mooy bis yu ñu lim ya ñetti fan la bis yu ñu lim moom la ñu tuddee ayaamu tashriq mooy ñetti fan la bis ñetti fan yooyu kenn du ko woor lekk naan tudd yàlla même ku ajiwul fii nii ci réew mi soo jullee waxtu yu juróom ba pare da ngay tudd yàlla subhanahu wa taala ginnaaw saa yoo sëlmalee ginnaaw waxtu yu juróom waxtu yu juróom juróom-benneel ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy ar ruxsatu fi taajili liman rama al ayaamu saani may nañ yolomal nañ yombalal nañ ku yàkkamti dem sànni ji say jamra ci deuxième jour maanaam ku bëgg a ñibbi yombalal nañ ci yow nga dem sànni ji say jamra deuxième jour dem ñibbi loolu amul benn problème may nañ la ko sharia moo la ko may sunu borom subhanahu wa taala moo la ko yombalal moo la ko may juróom-ñaareel mooy al amru bi taqwallah yàllaa ngi tëje aaya yi mooy nañ ko ragal nañ ko moytandiku wa zikril xasri nañu fàttaliku bis bu ñu yàlla di dajale yowm alqiyamati xufaat uraat xurala xufaat uraat xurala xufaat kenn du sol yére kenn du sol dàll xufaat kenn du sol mbaxne uraat kenn du sol yére xurala kenn du jong ñëpp dung ñëpp ñëpp laa wax dung ku sa xel xalaat rek dung lay def ba mu des ñaari nit Ibrahima ak Muhammad keneen ku dul ñooñu sa xel dem ci fii nga toog dung lay def dung xufaat uraat xurala yàlla nee na xalaat leen bis boobu taxawaay boobu na ngeen koy xalaat yowmal xasri wal xisaab ak bis bu ñu leen di àtte kenn par kenn diw doomu diw ak diw nga ni tëll génn ci kanamu jaam ñi taxaw ci kanamu boromu jaam ñi wal jaza ñu lay àtte di régler li nga defoon ci àdduna ñu fas yéene la koo fay is mbokk yi haza zikr tudd yàlla bi yàlla di digle ne nañ ko tudd yusaa'iduka ala taqwallah daf lay dimbali ci nga ragal yàlla azza wa jal kon borom bi sax wax na fazkuruni azkurukum nga lawaay dee leen ma tudd di ma fàttaliku ndax man tamit ma leen di tudd kon ixwaan yi juróom-ñaari mbir yi la ñuy jëlee ci ñeenti aaya yi tey nekk sunu kanam ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أسد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يقول جل وعلا بور سبحانه وتعالى نينا فإذا قضيتم سنين نبي سنين paree fa iza qadaytum su ngeen joxee manasikakum seen aj seen jaamu yàlla li ngeen war a def yépp bu ngeen ko defee ba pare lu fi des mooy wadkurullaha tudd leen yàlla ni ngeen ko bàkk di ko kañ lan mooy tudd yàlla tudd yàlla du leen lu dul rek bàkk ko tagg ko kañ ko moom allahu subhanahu wa taala loolu dong mooy tudd yàlla kese tey su benn waay dagge woon ca làng ba rek ñëw fekk la fi nga taxaw di la yuuxu tàmbale ci say mamaar di yuuxu di yuuxu di yuuxu di yuuxu di yuuxu nooy def léeg-léeg saa yi sa nga gis ko aalu daan ne cas yére yi sànni ko ko waaw bu fekkee doomu aadama rek nga ko defal mu tàqali ko xelam dugal loxoom ci poosam génn li ci nekkoon yëpp jox la ba jeexal daal di simmi yére yi jox la doomu aadama rek nga ko def kon boo ko defee yàlla nag yàlla boo ko toppee di ko tagg di ko kañ ci turam yu sell yeeg melokaanam yi ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya salaam ya mu'min ya muhaymin ya aziz ah tur yàlla yi ñaata la 99 mu ne man ahsaha daxala aljanna ku ko mokkal dugg aljanna ku ko mokkal ci jumaa ji ku mokkal dugg àjjana la ñu wax de man ahsaha daxala al janna buñ ne woon ku ko mokkal ñu may la terrain 15 sur 10 Nord Foire suba billahi am na ñoo xam ne bala ñuy julli génn nañ ne ilimaan mokkal naa ko yàlla aljanna la wax de aljanna moop 15 sur 10 mbokki man ahsaha la yonent bi wax daxala al janna ah kon nag ñu ci góorgóorlu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ci aaya bi yàllaa ngi orienté way gëm yàlla yi yursidu taala al muminin iza faragu min manasikihim bu ñu paree noppee ci jaamu yàlla ci sànni jamra yi mooy jamratul aqba ak rey loj wër kaaba gi ngay dem sànni fanaan musdalifa xëy sànni ji jamra ah muy jamratul aqba rey sa tabaski wër kaaba gi tawaaf tawaaful ifaada su boobaa nag lan la ñu yàlla digal muy wastaqarru mu ne na ngeen sax bi minan ci mina lirraxati wal istijmaami wa an yuksiru min zikrillah na ngeen fa nekk ngeen noppalu waaye na ngeen fàtte li gën a rëy li leen bàyyi ci barab boobu pour ngeen war fa nekk ñetti fan mooy ngeen di tudd yàlla di ko bàkk di ko kañ ci ay melokaanam ak ay turam yu rafet yu sell yi ñaata aaye ñaata hadis la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñu soññ ci zikr benn waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sharia islam dafa diis sama kaw wax ma loo xam ne rek dinaa ci mën a sax atasabbatu biha loo xam ni mu ne ko laa yazaalu laa yazaalu lisaanaka ratban li zikrillah fexeel rek salaam miñ bi foo nekk nay tooy ci tudd yàlla bu la kenn gis nga ñepp bu la kenn gis nga noppi lu dul yaa ngi tudd yàlla subhanahu wa taala zikrullah mubaahun li kulli zamanin wa makaan tudd yàlla laajul njàpp laajul jublu penk laajul jublu saw laajul jublu laajul laajul tëdd laajul taxaw wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum du la la yàlla wax tudd leen yàlla bu ngeen taxawee bu ngeen toogee bu ngeen tëddee laajul njàpp laajul dara place bu nekk mën nga faa tudd yàlla ba mu des toilette jeex na lii koy yomb na loolu la yàlla bëgg ci ñun ñu koy tudd rawatina nag ku aji ba nekk mina na jàpp ne ñetti fan yam fay def tudd yàlla la waaw toilette yóbbuwu la fa jaagar jaagar yóbbuwu la fa puukare yóbbu la fa maal asaf tey da ngay dem nga gis nit ñi fàtte lan moo tax ñu aji bu ñu bu ñu defee loolu ba pare ba nekk mina rek jàpp nañ ne fi mu nekk nag xumbaay a des mbuub mbaay waaw cëppi cëppi foo tollu dégg baat yi di yuux te lii yàlla taxoon wax ñu wax ko te lii dafa am sabab léegi léegi ci ñaari seconde di ngeen gis li tax yàlla mu ne nañ tudd yàlla ci mina fa iza qadaytum bu ngeen noppee manaasikakum ci seeni aj seeni jaamu yàlla yooyu yàlla santoon leen ngeen def mooy sànni jamra ak wëri kaaba gi rendi seeni xar ginnaaw ba ngeen jullee mu ne fazkurullaha tudd leen yàlla ka zikrikum abaakum comme ni ko seen bàyyi daan defee ca ceddo ga démb ca jaahiliya balaa lislaam ñëw yi bokkaalekat yi bu ñu ajee ba pare dañ daan taxaw ca place di tagg seeni maam ku nekk nga nag rek mu naan man sama maam moo fi ëppoon alal sama maam moo fi gënoon a nangam sama maam jàmbaar la woon yow yàlla sama maam moom ni mu nekkee woon ponkal nang ma def noonu ma nekk ponkal sama maam ni mu bëree woon alal nag yàlla mu ne ah su fekkente ne ceddo yi ñoom ñooy taxaw ci barab bi di màggal seeni baay ak seeni maam kon yéen jullit yi def leen lu raw loolu ci yàlla moo tax mu ne aaya bi fazkurullaha tudd leen yàlla ka zikirikum abaakum comme seeni bàyyi nañ ko doon defee ci ceddo ga di ko defal xërëm yi yéen defal leen ko yàlla kuy kuy kuy taggaate ku nekk tagg yàlla moo ci raw kuy sant ku ne sant yàllaa ci raw kuy màggal ku ne màggal yàlla moo ci raw mu ne aw walla asaddu zikran lu gën a tar sax lu gën a raw ñoom niñ ko doon defee yéen defee leen ko noonu gis ngeen kon jaamu yàlla su fekkente ne chaque jour dama koy faral di wax ci misaal aaya yu mel nii nga joxe ci misaal ci mbokk yi su fekkente ne nit ñi nangu nañoo sonn ci bidaa di ci tukki di ci financé ay alal ana waa sunna lu tax bëggu ñoo sonn ci sunna benn misaal bu ndaw rek laa leen di jox ahlu bidaa yi tey ci Sénégal mbooloo moo ci jël am nañu rajo am nañu télé alaysa kazalik ana ayna rajo ahlu sunna wal jamaa ana seen télé bu nee bu ñeenaree sonn ndax seeni bidaa samp yéen fama baalukum an tuqimu sunna fekkee ñee nangu nañoo sonn bidaa yi samp ñu koy tas ci ay moyens ay jumtukaay yéen nag ñun nag xoolal yàlla li mu wax ñii léegi bu fekkee ceddo yi ñoo doon taxaw fi di yuuxu seeni maam yéen taxaw leen fi ngeen yuuxu yàlla lu raw ñee nañ doon yuuxu aw asaddu zikran wala loolu du ma yaay bi moo ci tegu wala du loolu moo nekk seen téere yi ah man dama ma nekk sama kaamil aw asaddu zikran ñee niñ ko doon defee yéen na raw na gën a dëgër bu bu bu bu caaxaankat yi nangoo sonn seen caaxaan ñi yor dëgg lu tax duñ ci sonn léeg-léeg ma ma tëdd guddi saa yi ma tëddee guddi dinaa dégg ay nit ñi ay nit di yuux ba mu des waa sunna sama soxna mu ne ma xoolal tey ñii ñoo aye tey ñii ñoo aye tey ñii ñoo aye ma ne ko di nga dégg ñëpp ba mu des waa sunna guddi gu nekk wala yéen seeni koñ guddi gu nekk di ngeen dégg ay rajo di yuux waaye rajo sunna bokku ci wala wala wala yéen seen koñ amul wala wala da ngeen nangu li mu wax da ngeen dégg ñëpp di wax guddi ba mu des waa sunna dégg ngeen léegi-léegi sax dégg ngeen dégg ngeen rajo yaa ngi ñëw kon lan moo nu war mooy lii liggéeyu yàlla la liggéeyu yàlla gis ngeen yàlla ku mu bëgg lay liggéeyloo ku mu bëgg fay ëllëg lay liggéeyloo yàlla subhanahu wa taala bu la santee liggéeyal ma rek daf laa bëgg ñaata nit ñoo nekk ci àddina bi ñaata nit ñoo nekk Sénégal ñaata nit ñooy fees stade yi xoolal tey stade bi ah premier ministre sax ñëw na kon yàlla subhanahu wa taala moo nu tànn génne ñu wa kazalika kuntum min qablu fa manna allah il faut ñu xam yàlla lim ñu jox pour ñu nangu cee taxaw mu samp lii ñuy def nii ay nit ñoo ci taxawoon ba ñun ñu jot ci ay nit ñoo ci taxaw gar ci seen tànk xar ci seen tànk tubéy tuur ci seen deret ñaata sahaaba lañ rey ñuy tas diine ji ñaata ba ñun ñu jot su fekkoon ne ñoom biñ ko jotee ba pare dañ doon nelaw kon ñun duñ ci jot diina ji fan la bàyyee ko Màkk Màkk ak Sénégal ñaata kilomètre la ku mën a mesurer fii ku mën a mesurer waaye ay nit ñoo ko saxaaba yi war nañ ay fas dawal fas yi ba ci géej gi ñu waat ci yàlla ne bu ñu xamoon ginnaaw géej gi ay nit a nga fa dëkk a nga fa danañ xuus fas yi ci biir géej gi yóbbu diine ji wallahi alazim dañoo waat ci yàlla ne ñun bu ñu xamoon ginnaaw géej gii ay nit a ngi fi wallahi danañ xuus géej gi yóbbul leen diine ji ñun nag waxuma la ñu xuus ay géej waaye mënuñu xuus sax ay mètre ay mètre yu ndaw yenn saa yi sax nga gis koo xam ne dëkkandoom musul wax ak dëkkandoom yenn saa yi nga gis koo xam ne mënul sax sensibiliser jabaram wala ay doomam wala ay dëkkandoom wala ay këram wala ay rakkam ak dañ leen ragal yàlla wa anzir asiratakal aqrabin yàlla nee na waaral ñi la gën a jege même bu dee xeex wa qatil ladina yaglunakum min alkuffaari xeex sax booy xeex yàlla mu ne yéeféer yi la jege ngay njëkk a xeexal pas yéeféer yi sori bu dee waaraate mu ne ñi la gën a jege gis nga lu nekk lu la gën a jege dee sax ñu ne al aqrabu awla ku jege moo gën a yey ci ku dee ki kon ñun am nañu liggéey bu rëy mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne fa min annaasi am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy dem ba màkka jàkkaarloog borom bi man koo xam ne yaqulu da koy day wax di ñaan naan ko rabbanaa yow sunu borom aatinaa ñu ngi lay ñaan fi duniyaa ci àdduna kese wa maa lahu yàlla nee na ñooñu amuñu kooku amul fil axirat ci àllaaxira min xalaaq benn cër ku dem ba ba ci yàlla amoo loo koy ñaan yàlla àdduna rek sunu benn xarit tooñkat la mu ne dafa am benn maire bu dem ba màkk jàkkaarloo kaaba gi amul lu mu koy ñaan mu ne yàlla lii laa lay ñaan yàlla loolu rek laa lay ñaan yaa rabbi ina mu ne nii mu ñëwaat yàlla natt ko yëf yi rëy ba mënatul dox mënul dox bu duggee oto ñu ne ko trois places ngay fay mu am problème xoolal loolu rek nu mu grave pourtant am na fi sunu ustaas doon na ma nettali mu ne dafa am ndeysaan koo xam dafa jàkkaarloog kaaba gi naan yàlla wax benn turu jigéen ne yàlla bu ma mucc ci moom yàlla bu ma mucc ci ndaw si voilà ndax yàqu ndax nit ñu nit ñoo xam ne seen xol yi dañoo yàqu sunu borom moo ñu am ñoom dañuy dem di ñaan amul lu ñuy ñaan yàlla lu dul adduna rek yàlla nee na ñooñu di ñaan adduna fa maa lahu fil axirati min xalaaq amuñ ci yàlla benn cër yàlla pare na ci ñoom adduna rek lañ gëm adduna la ñuy ñaan loolu moo fi am loolu mooy am fi ñu nekk ni li ëpp ci nit ñi ku la ne ñaanal ma ñëw ne ñaan laa bëgg du la ne mu ñaanal ma ma gëm yàlla ñaanal ma ma am imaan ñaanal ma ma dugg aljana la lay wax maanaam sëñ bi affaire adduna rek affaire adduna kese kese am na benn sëriñ sax bu ko wax nee na ñun sunu taalibe yi wax dëgg yàlla bu ñëwee ci ñun duñ ñu wax waxu àllaaxira waxu adduna rek lañ ñuy wax ndax àllaaxira moom dafa am koo xam ne moo ñu fa toogal rek la na mbir yi ba pare moo tax gars yi àdduna rek la ñuy wax ñu ñëpp loolu loonu dal suñ borom loolu la ñuy nettali ci alxuraan bi aaya yaa ngi nii mu ne wa min annaasi am na ci nit ñi ñoo xam ne man waa joo xam ne yaquulu day wax di ñaan rabbana yow sunu boroom aatinaa ñu ngi lay ñaan fi duniyaa ci àdduna kese àdduna rek yàlla mu ne wa maa lahu waa ji amul fil axirati ci alaxira min xalaaqin ci benn cër allahu akbar yàlla dencalu ko dara dara dara alaxira lépp lu mu ñaan adduna la moo tax adduna rek la ko yàlla di may adduna léegi nag ku mel noonu boo dëkkee ak moom adduna la ñaan adduna bi ubbeeku alal ji bari muy jënd ay kër di tabax di di di yaataa yimbee di sol ay grand bu di bonde di tëb di dal nga yaakaar ne moo nekk ci dëgg fekk li mu ñaan yàlla adduna la ñaan yàlla yàlla ubbil ko adduna léegi nag yow mu bugg laa këf parce que moom alaaxira amu fa dara lépp lu mu amoon ñaan na ko yàlla adduna jeex na loolu yàlla na ci yàlla musal mu ne sunu borom subhanahu wa taala nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne wa bayyana taala xaaluhum wa hiya anna minhum man hammuhu dunya allahu akbar fa huwa la yasalu allahu taala illa ma yuhimmuhu am na ci ñoo xam ne ci jaami yàlla yi ci nit ñi ñoo xam ne seen yitte yëpp àdduna kese la àdduna rek amuñu yitte dara lu dul àdduna lu ñu lekk lu nu naan lu nu sol fu nu dëkk lu nu war lu ñu sëyal rek àdduna rek waaw na tàng na sedd na nooy na rafet rek mooy seen métier laa yasalullah taala illa ma yuhimuhu du ñaan yàlla lu dul yitteem wa hada kaana alayhi aksaru lxujjaaju fi ljahiliya nee na lii nag jikko ceddo yi la woon démb balaa lislaam ñëw ca ceddo ga mooy ñi nga xam ne aduna rek lañ daan ñaan yàlla alaxira bokk ci loolu nag yàlla daf koy moytandikuloo julli di balaa ñuy mel ni ñoom sunu boroom subhanahu wa taala mu ne wa minhum am na ci nit ñi man koo xam ne yaqulu day wax rabbana yow sunu boroom aatinaa ñu ngi lay ñaan fi dunya ci aduna xasanatan lu baax wa fil axirati ci alaxira xasanatan lu baax waqinaa yal nag ñu musal waqinaa musal ñu adaba naar ci mbugalum safara mu ne ulaayika ñii lahum nasibum mimma kasabu ñii ñoom ñoo am cër ca la ñu fàggu ñii ñoo fàggu fàggu bu rafet ñii ñoo ñaan ñaan bu baax ñii ñoo liggéey ñi nga xam ne dañoo ñaan adduna ñaan alaxira yow yàlla ñu ngi lay ñaan fi dunya ci adduna xasanatan jabar ju baax benn borom xam-xam mu ne ñaan bi boo koy ñaan da ngay am jabar ju baax ñoo tax mu ne xasanatan la yàlla wax da koo jigéenal xasanatan ah am na ñuy tuddee seen doom xasanatu ñii nii mu ngi nii gis nga xasana xasanatun ah mooy jabar ju baax wa fil axirati ci alaxira xasanatan aljanna sunu borom subhanahu wa taala mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala lu baax ci adduna xasana addunya kullu ma kullu ma yassara kullu ma kaana yusrun wala yadur gis nga même borom xam-xam bi même borom téere bi bi mu koy firi loolu la wax mu ne min zawjatin salihatin wa waladin salihin wa rizqin halalin wa xasanat al axira an najaatu min annaar wa duxulul janna mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan ci àdduna lépp lu yomb lu dul loraate ci jabar ju baax ci doom ju baax ci wërsëg bu u dagan wu araamul alaxira nag maa ngi la fay ñaan rëcc ci safara dugg aljanna lii ñaan bi kon bu ko nit ki xamoon bu ko julli di xamoon tey bu la nit ne woon ñaanal ma nga ni rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana te day yàpp ne ñaan loo ko dara lu tax parce que ñaan bi da ko dañ koo dañ koo dégg ci nopp yi moomu booy mais xamuñu maanaa bi xamuñu ñaan bi lan la ëmb moo tax duñ ci farlu duñ ci duñ ko duñ ko gëmuñu ko ndax luñ ko dégg nu mu baree baree baree bare xale ndaw yi sax mën nañ ko rabba da nga gee dégg ñu koy fooyee rabbana atina fet fekk li taxoon ñu koy jàngal xale yi noonu mooy pour li mu am importance léegi nag nit ñi yàgg dégg bu ñu ko yàgg dégg dañuy dem ba ñàkkal ko fayda loolu moo daloon yonent yàlla Moussa Moussa dafa ne yàlla xamal ma benn ñaan boo xam ne su ma la bëggee ñaan ma ñaan la ci yàlla mu ne ko Moussa waxal laa ilaha illa allah mu ne yàlla loolu ñëpp xam nañ ko ñu ngi koy wax gis nga yàlla mu ne ko Moussa buñ jëloon asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar teg ko ci plate ci blanche ñu jël laa ilaha illallah teg ci beneen plateau bi mu ne la maalat ilayhinna laa ilaha illallah mu ne giñ naa ci sama màggaay laa ilaha illallah dina daaneel juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari suuf yi kon nit ñi dañ koy wax mais xamuñu li ñuy wax lan la nekkul nit ñaa ngi koy wax rek jar est-ce que nit ñi wax nañ ko comme nu mu waree est-ce que nit ñi xam nañ ko est-ce que waa ji ñaan ñaan bi concentré wu na ci yàlla ñaan ko ñaan bi Moussa gis na benn waay buy ñaan yàlla ba poqataan yi génn ndax yëkkati bi mu lëkkati loxo yi yàlla mu ne Moussa mu ne yàlla mayal waa ji may ko xool kii nim de yàlla mu ne Moussa man duma may koo xam ne xelam nekkul ci lim may ñaan ku ne nii di yuuxu nga ni xelam nekk ci Moussa mu ne yàlla kii xelam fu mu nekk mu ne ci xaram yee muy sàmm balaa till di leen fàdd gis nga ndekke kon c'est important li ngay wax nga bàyyi ci xel concentré wu xam ne yàlla ngay ñaan yàlla moo lay may waaye ñaan goo xamante ne xarf kese mooy génn ci gémmiñ xarf rabbana atina fid dunya hasanatan tëf la nit ñi bañ tooy avec amul benn njëriñ moo tax du ñu am dara parce que mbir yi dañ koy soofantal di ko fowee saxaaba yi li ñu doon ñaane moo fi nekk ñaan yi ba léegi moo fi nekk alxuraan bii la saxaaba yi doon jàng alxuraan moo fi nekk pourquoi ñoom ñu def ci ay miracle ñun mënuñu ko ci def ñoom ñu def ci ay kéemtaan ñun mënuñu ko ci def ça veut dire que ne mbir yi fa mu doon génnee ak ñun fa muy génnee ci ñun moo dul benn benn benn benn jigéen jinne da ko jàpp ñu indi ko ci Omar ci jamonoom la woon Omar daal di jóg jàpp rek daal ne aoudu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim qaaf rek ginne bi daal ne par daal di yuux daal di génn ci ndaw si rek daw départ mel na mus mu ñuul ndaw si wér këng dem ñibbi mu toog mu toog ay at ba Omar génn àdduna jinne bi daal di tourné xam ngeen jinne day gudd fan jinne jinne day dund ay junni at am na benn jinne bu tudd Moustapha Kanjour nee na gis gis na Iblis ñaari yoon Moustapha Kanjour la tudd nee na gis na Iblis ñaari yoon ñu ne ko bu njëkk bi bu ñu koy gis ñaataan nga mu ne boobu liir laa woon sama maam yóbbu ma ci moom te boobu juróom fukki at laa amoon te liir laa am na ñu ne téeméeri at la wax mu ne boobu téeméeri at la am te boobu liir laa sama maam yóbbu ma ci Iblis pour mu ñaanal ma te boobu liir laa maa ngi am téeméeri at Omar bi mu génnee àdduna jinne bi daal di ñëwaat daal di duggaat ci ndaw si benn waay bu ko fekkee woon ñu indi ko mu ne fekkee woon naa ko xaaral ma ñëw xam naa la ko Omar ñaanaloon daal di jàpp ñoo ne aoudu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim qaaf jinne bi ne ko doo Omar daal di reetaan ne ko lasta Omar doo Omar yow eh man eh waaye dim doo doo Omar waaw lànk daal di toog ci biir ndaw si ba jegéen gis ngeen kon dañu leen bàyyi xel mbir yi bu baax a baax a baax il faut ñu gëm ko ni ko gaa yi gëmee woon su boobaa la ñuy jëriñ waaye bu fekkee gëmuñu ko ni ko gaa yi gëmee woon duñ ñu jëriñu sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa minhum am na ci nit ñi ci ñoom man koo xam ne yaqulu day wax rabbana yow sunu borom aatinaa ñu ngi lay ñaan indil ñu fi dunya ci àdduna xasanatan lu baax wa fil axirati ci àllaaxira aussi xasanatan may ñu fa lu baax waqinaa fegal nu musal nu azaban naar ci mbëggalum safara mu ne ulaayika ñii ñaan ñaan gi lahum am nañ nasibun cër bu rëy mimma kasabu ca la ñu fàggu xasdun am nañu cër min min amalihim alsaaliha ci seen jëf yu baax wa du'aihim ak saaliha ak seeni ñaan yu baax wallahi ñi ñaan ñaan gi lépp lu ñu def ci lu baax yàlla nee na dencal naa leen ko am nañu cër àllaaxira gis ngeen ku dem ku sànq gi yàlla da ne amul benn cër àllaaxira kii dafa boole àdduna ak àllaaxira yàlla mu ne am na lu ma ko dencal kële nag dencaluñ ko dara c'est parce que àdduna la ñaan àdduna lañ ko may mu ne wallaahu yàlla na ngeen yëg yéen jaam yi sariul xisaab ku gaaw ni muy àttee la ku gaaw ni muy réglé la yàlla subhanahu wa taala ni muy réglé jaam ñi yowmal qiyaam mbir mu yéeme la ci xeefa xippi rek ku nekk xam fi nga jëm xeefa xippi seconde ku nekk sariul xisaab la yàlla wax yàlla nee na damaa gaaw nu may àttee ah xoola banque yi rek xoola Sénégal banque yi bu ñuy fay rang bi lu mu gudd gudd gudd ay waxtu ay minute boo ñëwee doo fekkaat kenn ñu fay le na te ay machine rek lañ yor amma yàlla nag mbooloo mi fi ñu jaxasoo ñu bon ñeeg ñu baax ñi yàlla danaan wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun yéen ñu bon ñi génn leen ci biir ñu baax ñi ñu bon ñi daal di jël seen bagage taxaw na le ñu baax ñi daal di taxaw foofu yàlla da leen di segg tame la yor ñooñu rëcc nañ ñu ñëwaat ci ñu baax ñi daan ne yow ma yuksafu an saaqin wa yudaawna ila sujud aca sujud leen foofu la ñuy tànn ñiy julli ak ñi du loon di julli suñu ne sujud rek waaw loolu laay ga góor sujud gars yi daal di dem teer sujud ñu daawul julli seen articulation yi daal di kale ñu ne nii duñ dem dañu mel ne ay pot lampe kan kan ci ñun moo mën a sujootal pot lampe am na ko fi mën kan ci ñun moo mën a sujootloo garab ak kay foofu foofu ngeen koy gën a déggee buñ ne sujoot ñi doon julli dañuy sujoot ñi daawul julli duñu dañ naan kott taxaw mel ne garab seen ndigg yi ñooy lànk ñu daal di tame ñooñu aussi ñu génn yàlla mu ne wa duriba baynahum bi suur benn miir mooy ñëw séparé leen ñu jullit yaa ngi nii ñu bon ñaa ngi nii rek benn miir tabax bu rëy daal di dóor seen diggante wa duriba baynahum bi suur baabun baatinuhu wa zahiruhu min qibalihil côté bële safaraa ngi fa gaa yaa ngi commencé lakk ndeysaan ñu ngay woo jullit ñi ñu ngi fëgg miir bi di woo jullit ñi côté bii naan leen alam nakum maakum ey waay xanaa ñun ànduñu woon ak yéen xaalu bala aha kay waaye walakinnakum fatantum anfusakum fatarabbastum wartabtum gis ngeen yàlla commencé di leen jajj di leen xas aha kay yéen a ngi àndoon nuyu ci àdduna waaye bu ñu doon doon tafsir yéen ngeen dem stade ne ne julli jot na nga ni non may seetaan match bi ba mu tas quoi bu ñu nee àllaaxira nga ni loolu ay ay faux problème la non got naan du télé xam na nu mu demee quoi non yaa ngi ñoom yéen a àndoon waaye waa ji bi muy def lu baax daawoo ànd ak moom buy dem ci ñu baax ñi nga dem ci ñu bon ñi kon nag tey yàlla da leen di séparer parce que bokku leen woon ay jëf ndeysaan ñii nekk côté bi ñoom ñu ngi ci yërmande ñii nekk côté bee ñoo ngi ci safara yàlla di leen mbugal ñoo nañ ci yàlla musal suñu borom mu ne wallahu yàlla sari ku gaaw la alxisaab nu muy rek la jaam yi allahu akbar xefa xib seconde yàlla atte ñëpp borom bi ne wazkurullaha tudd leen yàlla fii ayaamin ci ay bis maadudatin yu ñu konte yu ñu lim mooy yan bis mooy ayaamu tashriq asalaasa baada yowmil iid ginnaaw bu ñu jullee tey iid tabaski ba ca tegu ba ca tegu ba ca teguwaat bis yooyu yëpp bisu tudd yàlla la képp ku julli waxtu yu juróom ba pare da ngay tudd yàlla allahu akbar ah nañ ñëw léegi insha allah ci nu ñuy tuddee yàlla lan la ñuy wax sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy digal mu ngi digal jaam yàlla yi aji pour ñu tudd ko ci fan yooyu muy ñetti fan ginnaaw julli yu juróom qaa'iliina ñu wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu salaasa marrat ñetti yoon ila al asri yowmi salis ba ca tàkk saanu troisième jour ba fi ayaami tashriq ci ñetti fan ya bu ñu jullee tabaski ba pare ñetti fan yi ci tegu dañuy tudd yàlla ginnaaw waxtu yi juróom lii la ñuy wax mooy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd dañ koy wax ba kañ ba ca tàkkusaanu troisième jour ba kon loolu lañ suñ borom subhanahu wa taala digal moo tax mu ne wazkurullaha na ngeen tudd yàlla subhanahu wa taala na ngeen ko bàkk na ngeen ko kañ moom yàlla subhanahu wa taala jëlee nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhuma qaala al ayam al maadudat ayamu tashriq wal ayamu al maalumat ayamu al ishirina ayamu al ashara min awali zilhijja dafa am ci alquran ayaamun maalumaat ak ayaamun maadudaat ayaamun maadudaat mooy ñetti fan yii ginnaaw tabaski ayaamun maalumaat mooy fukki fanu tabaski yi yéen a ngi may dégg tabaski bu amee ñaata fan la ñuy julli fukk première zilhijja première deuxième ba mu nekk fukk yooyu mooy ayaamum maalumaat ayaamum maadudaat mooy ñetti fan yi tabaski tabaski ba yet ñetti fan yi ci tegu ñetti fan yooyu la ñuy tudd yàlla subhanahu wa taala loolu la ñu ibnu Ab- ibnu abbas wax jëlee nañ ci anas radiallahu anhu wa ardaahu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ñaan bi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar qaala kaana aksaru daawatin yad'u biha nabi saa sallam yonente bi saa sallam ñaan bi ëpp lim daan ñaan mooy ñaan bi ñaan bi gën a bëri yonent bi daan ko ñaan mooy ñaan bi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annar sunu borom ne waskurullah tudd leen yàlla fi ayamin maadudat ci ñetti fan yooyu fa man taajala ku yàkkamti fii yow may ni ba dem sànni ji jamra ci ñaari fan yi fala isma alayhi amul bakkaar wa man taaxara ku ko yéexe ba ñaari fan yi paasa ñetti fan yi mu dem sànni ji fala isma alayhi amul bakkaar loolu yolomal la yombal la ku yàkkamti bëgg a ñibbi dem sànni ji say jamra ci deuxième jour bi baax na ku bàyyi tamit ba deuxième jour bi passé nga dem sànni ji borom bi subhaanahu wa taala nee na bàkkaar amu ci waaye ñaar yëpp nag li ko borom bi tëje mooy li ma nit taqa na ko ragal yàlla lal ki dem deuxième jour ak ki dem beneen fan bi ñoom ñaar yëpp na ko ragal yàlla lal mu ne sunu borom ne subhaanahu wa taala la xaraja ala man taajjala safar képp koo xam ne dafa gaaw bëgg a dellu ila ahli ci këram baada ram yi al yawmi saani ginnaaw ba mu sànnijee deuxième jour bi kaman la xaraja ala man taaxara min yawmi saalis fa qaala taala fa man taajjala fi yawmayni fala isma alay wa man taaxara fala isma alay waaye ñaar yëpp liman ittaqa fal amru ala taxyir wa quyida nafi l ism bi taqwa allahi mu ne ñaar yëpp li ci am importance ndigal gi mooy dañoo tànnloo doomu aadama bi deuxième bi la koy def wala troisième bi la koy def waaye mu ne tënk nañ ko yeew nañ mbir mi nag ci ragal yàlla yow mi koy def na ko ragal yàlla lal sunu borom subhanahu wa taala mu ne wattaqullaha ragal leen yàlla wattaqullaha na ngeen moytu yàlla waalamu ngeen xam annakum yéen tuxsaruuna ilayhi ci yàlla lañ leen di dajale su benn boroom xam-xam bu tudd Saïd Hawa rahimahullah mu ne su ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee sunu aaya yi tey fan la jeexee mbokk yi yàlla nee na ragal leen yàlla te ngeen xam ne yéen ñëpp danañ leen dajale indi leen ci man kon loolu bu leeree ci ñun lan lañ war a def bu fekkee leer nañu ne ay bëccëg a ngi ñëw wala ay guddi danañ ñu dajale taxawloo ñu ci sunu kanamu boroom ah mbokk yi kon de loolu laaj na taxawaay laaj na taxawaay de laaj na préparé de laaj na waaj de laaj na takku de laaj na taxaw de laaj na liggéey de laaj na góorgóorlu de wattaqullaha ragal leen yàlla mooy tandiku leen ko waalamu ngeen yëg annakum yéen ñii tuxsaruna ilayhi dinañ leen dajale ci kanamu yàlla ilayhi tuxsarun ay tuxsaruna ilayhi dañ leen yeew ngeen taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ixwaan yi li mooy aaya tey yi ñu ngi jéggalu ñaan yàlla subhanahu wa taala bu amee ay njuumte yal nañu ko jéggal asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu